bon dialogue bi solution yi nga xam te nii yaakaar nañ ne dina ci am bon solution politique moom moom daanaka jël nañ ay conclusion yóbbu ko assemblée nationale pour yenn conclusion politique yi. Mhm. xëy na sax dinañ ci amaal yi nga xam moom mooy euh, mooy euh, kii bi euh, secteur privé bi yeneen commission yi seen ay recommandation xëy nañ ko prendre en charge waaye jàpp naan tey lu gën a fës ci bu bët Sénégal yëpp te ñëpp gisandoo ko mooy li nga xam mooy les conclusions politiques tey amaana. xëy na ñoo ngi nekk à six mois sept mois des élections présidentielles mais jàpp naan tey aussi askan bi tey am na loo xamante ni woon nañ ko ci loo xamante ni tey amaana dialogue bi day war na nekk loo xamante ni comme ni ñu koy waxee lu ñu institutionnalisé la war a nekk loo xamante ni day dafa war a loo xamante chaque trois mois chaque année wala chaque trois mois a di am parce a beaucoup de problèmes au Sénégal yoo xamante ni tey dialogue bi mën tey bu fekkee ne dialogue bi tey tey dialogue bi ñu gis nii bu amoon en 2011 jàpp naa ne tey 11 personnes yi gaañu ci euh, événement juin yi mën nañ mën nañ ko éviter tey le président Macky Sall il a beaucoup si si Ablaye Wade le fekk que Ablaye Wade àgg fu mu àggoon ak askan bi ba amoon ay nit yu si décédé tey bu Wade méthode bi Macky Sall jël bu ko Ablaye Wade jëloon. Mm. te jàpp naan tey onze personnes yi gaañu en 2011 mën nañ ko éviter. man loolu sama sama gis-gis la.